aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu ñaanalee ak cheikh mahamadul muntaxa ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko noonu la ñuy ñaanale mbooleem njabootu cheikhul xadim gi ak mbooleem kilifa diine yëpp waaye di ko ñaanal cheikh abdoulatif jenn mi xalifa maam cheikh isa jenn ngir jataay bii nu amal tey jii dafa jëm ci jàmbaar jooju muy cheikh isa jenn radiallahu taala anhu joo xam ne jël na léppam jeexal ko ci liggéeyal ku tedd ki xaadimu rasul njabootam gii na nga xam ne mooy sëti Cheikh jenn Dienne ak yi nga xam ne ñoo lëkkaloo àndandoo ngir dundal ak feeñal liggéeyu Cheikh Issa baaxoo at mu jot nag ñu tànn bis boo xam ne dañu koy amal ca CICES muy bis bu màgg muy bisub fàttaliku ak jàngat dund ak taxawaayu maam Cheikh Issa Dienne loolu nag ci njiitul Serigne Cheikh Dienne nekk sëtam ànd ko ak comité bi yëpp muy comité d'organisation bi Euh, bis boobu nag incha allahu xam ngeen ne ren mu war a nekk le vingt huit incha allah sanvier dimanche la war a am ci CICES e muy bis boo xam ne ku ko xam rek xam ne bis la bu am solo ngir ki ñu koy defal moo toll noonu muy Cheikh Issa Diène borom ngërëm yi nga xam ne Serigne Touba ko ko waaye Cheikh Issa Diène nga xam ne góor yàlla la Serigne ko ko seereel Cheikh Issa mi nga xam ne Serigne Touba moo waxal boppam ne bu guddi soree dafay deyaaleeg boromam. di ko sàkkul mu defal Cheikh Issa jenn ni Cheikh Abdou Khadir ni mel ci góor yàlla yi Cheikh Issa Diène mel ko ci biir gaañ loolu defe naa ko dem ci lettre sëñ Mbàkke kan yi bu suba eh, da nga ca fekk loolu tam nekk ni jaay Cheikh Abdou Khadir waaye nekk lu lu lu leer waaye it ku gis eh, sëriñ bi ci boppam keroog bi muy gërëm eh, taaw Cheikh Issa Diène muy sëriñ Baara Diène seereeloon na ko loolu mooy yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sa baay Issa Diène gërëm na la te ci góor yàlla yi la bokk loolu kon wane na ne waxi sëriñ Touba la ju leer muy Cheikh Issa Diagne mi nga xam ne it boo demee ci sëñ Mouhamed Lamine Diop Addaga nii day wax ba mu koy kañ dafa wax ne murit bu xam ba borom taxawaay bu rafet ba Cheikh Issa Diagne mi nga xam ne euh, bi muy ñëw ci Serigne bi jëkk fatxu bi di ñëw ci moom dafa doonoon koo xam ne mësta xeeb dara ci lu fu baax nekk ak aw yiw nga xam ne lu mu am ak fu mu gis lu baax dafay dem jël ko indi ko ci Serigne Touba waaye bi nga xamee ne Serigne bi seexal na ko it jox ko ci riwre yi mu am mu dem toj ay dëkk toj ay njenni gas ay teen di liggéeyal Serigne Touba nag ci atab yëpp xablal xëyba ak baxdal xëyb muy jëkk géej gi ak mujj géej gi doy na sëkk rek waxi Serigne Lamine Diop Dagana nee na Cheikh Issa Diène moo mujj nekk xutwatul jamia maanaam mooy royteefu ñëpp te ku xam ki ko wax fiqa la muy sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nga xam ne royteef la ci ñëpp nga xam ne lépp loo xam ne melokaan la doy na ci rek ci lu symbolisé mbiram tey boo ko doon wax mooy jumaa ji Serigne Touba jëkk am ci kaw suuf nga xam ne mooy jumaay njëreem moom la fi Cheikh Issa Diène mu joxoon ko digal waxoon ko ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne yaay jëwriñ xam ne waxoon na ne mooy misbaahu sama wala najaatu al ard waaye Cheikh Issa moom it li ngërëm yi di bari bari ci moom waxoon na ne sama sang ba Serigne Touba bu ma ko gisaatoon danaa ko liggéeyal ba sama yàpp yàlla nga tàggali ko ak lim dajale ci ngërëm yëpp ak cër yu rëy yi ko yàlla bareel doy na rek xaasal mafaaxira ngi daal jël su karamin wa faasa bil xurbi wa ridwaani bil xilami xibbil xadim mooy misbahu tariqatihi bi istanarat liman yamshi bila dulam loolu doy na rek sëkk ci eh, soppeb Serigne Touba ka làmboo sag ya làmboo ngërëm ya làmboo jege gi Serigne Touba mooy soppeb Serigne Touba ba waaye nag mooy misbahu tariqatihi mooy lampub ab yoonam képp ku tegtaloo Cheikh sa Dieng doo réer doo réeralaate te Serigne Touba moo tere woon nag ànd ak ku lay a ndax man ala ghayri ilahi ka fa firra minhu innahu adallaka Serigne Touba nee na képp koo xam ne daf lay won lu dul yàlla daw ko ndax daf lay la kon làmp bu mag bii di maam Cheikh Issa Diagne nga xam ne jëfam rëy na la Cheikh Moussa Ka waxoon rek ku weddi lii damal lagan Cheikh Issa di mbër xam ne loolu kon mbërum yàlla la ah mbër moomu nag ko yàlla jagleel it jagle gu rëy googu mu am ak melokaan woowu waaye la ci gën a yéeme nag Bàmbaa ko ci xërnu bi nga xam ne kon sëñ Touba moo ko tibbal moom Cheikh Issa Diagne eh, may ko ngëneel yu rëy yooyu nga xam ne jagleel na ko sëñ kay Kayre waxoon na ko Ah, waxoon na Cheikh Issa Dieng de xat xustaxil man waxul man summa maarifatan yow am nga xam nga te daawoo jayoo ko jay kenn réwu ko ci xam-xam waaye kenn réwu ko ci cërub yàlla bu rëy waaye nag ab taaliba la defoon boppam jaay léppam jaay njabootam jaay boppam jënde ko ngërëmul Serigne Touba ba tey foo xool ci àdduna bi rek gis jëfi Cheikh Issa Dieng radiyallahu la kooku nag moom la ñuy fàttaliku tey bisam boobu ànd kook sëtam yu baax yi ak taalibeem yu baax yi di jamaa bi nga xam ne seen yitte jëpp mooy gëstu bi nga xam ne moom la fi Cheikh Issa Diène bàyyi am ci taxawaay bu rëy nag te loolu bu amee dara du réer ndax adduna toll na foo xam ne ku mel ni Cheikh Issa Diène waras na ko bind ci téere yi waras na ko bind fu ne te loolu mooy njaboot gi taxawaayo ëllëg ñay ñëw ngërëb ba gëstu si bu ëllëgee am buntu bu yomb kon njaboot gi taxawaay boobu rek buñ ci yemoon ci liggéey doy na waaye teewul at mu jot nag ñu taxawaat ko jëmmal ko adduna bépp daje ci ren jii nag incha allah gis nga liñ defaat at mu jot ñu jël kenn ci mag ñi tuddee ko ko ngir fàttali ko ak rafetal relation bi amoon diggante Cheikh Issa jenn ak mag ñi ndax Cheikh Issa jenn ñëpp la déggooloon ci jikkoom ju rafet ñëpp la déggooloon ci jëfam waaye ku amoon ak dogu la goo xam ne kenn ku nekk joxoon na la cër ba nga moom waaye lam amoon li teyee na ko ndax la ko Sëñ Tuubaa sédde woon moo tax ren ji bis bi dellu ci Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh Anta Gaawaan moom nga xam ne doy na sëkk rek ci yéemu ci Serigne Touba mooy mook Serigne Touba noo bokk lépp ñoo bokk sëñ Mbàkke Mor Sali waaye ko xam soxna Anta Ndiaye it xam cër bi mu am xam kam doonaat Serigne Touba maam Cheikh Anta nag jaay loolu lépp jënde ko ak taalibe bi maam Cheikh Anta Gaawaan doy na rek moom la Serigne Touba daan def bu ko séenee ne wa maa tawfiiqi illaa billah maam Cheikh Anta Gaawaan rek doy na sëkk moom la Serigne Touba jël dëkk bi mu njëkk a sanc ci Dessasine muy Darou Salaam muy jox ko maam Cheikh Anta Gaawaan dëkkam boobu mu doon waxee ijaal salaamatan taduumu yaa salaam li yaa waa li naa yàlla fi daari salaam kooku la ko jagleeloon te boo demee ci doxawul kabir sëñ Touba day wax na li tax Daaru Salaam ak Touba gënal ma ci dëkk yi mooy seetlu yéene gi ma ko sance sëncu ma ko ngir yaxantu sëncu ma ko ngir bay sëncu ma ko ngir sàmm dama ko sanc ngir jaamu yàlla te yàlla ma ko tànnal dëkk boobu ba mu ko sancee maam Cheikh Anta la ko jox doy na it ba muy dem ci géej gi ba mu nekk ci géej gi lu waxu lahu taala rujuu min idaya ila daari salaami lati tubuna bi tajdidi ba mu fi jógee it foofu la dellu siwaat di Daaru Salaam maam Cheikh Anta Gaawaan mooy ki nga xam ne moo jóge fii ci réew mi boole alalam boole léppam fekk Serigne Touba Gabon Serigne Touba ne ko Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko sa ñëw gi yonente bee ma ko xamal Cheikh mu ne ko Mbacke mu ne ko fii lal bi fi la alayhi salatu salaam toogoon bu la neexee ma won la ko mu ne ko gis ko rek ma gis la lal boobu ci lañ teg soxna Anta Ndiaye way juróom keroog ba mu génnee àdduna ñu denc ko deqale Cheikh an foofee la ko Serigne Touba waxee ne ko Cheikh yonente bi nee na yaa yor sama sayr ma yor sa baatin moom alayhi salatu wasalaam foofee la ko sëñ bi joxe téere yi mu a bind ca géej gi taalif ko maam Cheikh andi yooyu moo ko jëkk mool maam Cheikh Anta Gaar moom nga xam ne jël na léppam nafsam ak nafisam lépp jeexal ko ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul nekk ki jëkk a seex ci yoonu fukki at ak ñeent nga amul dëkk waaye yemoo ca ami dong sëñ Tuubaa batal lépp am na tawféex ju toll nii bi bi jógee ci géej gi moom la woolu ca bato ba ne ko cheikh dem naa ba ñëw tompale sama mbóor waat naa wàcc naa wàccale naa képp koo xam ne moo ma yaakaar maam Cheikh Anta Gaawaan it bokk na ci jagleem mooy demal sëriñ Tuubaa Makka ndax ci naal yi sëriñ Tuubaa bàyyi woon la mu boole alalam kon alalam mooy alali sëriñ Tuubaa doonoon koo xam ne ku daan dimbale réew mi la moom Cheikh Anta Gawane dañuy wax ne mas na am bis boo xam ne jël na fi ceeb boo xam ne douze mille tonnes mat na ko séddale ko waa réew mépp nga xam daf daan dimbalee taxawu ay nit moom si di Muxtaar moom Cheikh Anta Gawane daana jël aw nit jël alal lebel leen ngir ñu dem ci ab jax di jaxantu ji mu yabalaat ñeneen ñoo xam dañ dem jëndi ko ngir dimbale jënd dafa ku xam Touba Toul ku xam gaawaan ku xam yeneen dëkk yi xam taxawaayu Cheikh Sidi Mokhtar kon jàmbaar jooju nga xam ne ab delluwaay la saq si yooyu figure yooyu nga xam dañoo génne ci daara Cheikhul Khadim seen jëf ràññi ko te ba léegi ku xool Daaru Salaam waxtu wu ne seen ndoortal lañ nekkoon ba léegi mooy jaayante maam Cheikh Anta gaawaan mas naa ñëw na Serigne Touba ñaas ma sa bambara laa jaay ma sa jaam laa sëf ma sa mbaam laa jaay li mu bokkoon ak Serigne Touba lépp kooku nag lañ féetale bis bi tey kon nag murid baa ngoog pësief yaa ngoog ca Cissés ànd koog jamaa bi nga xam ne ñooy taxaw turaasu maam Cheikh Issa Diène kon ñoo ngi leen ciy jox rendez-vous yéen ñëpp fas yéene leen ko ànd ren nag thème général bi nga xam ne moom la jël mooy jàmm jàmm nag Serigne Touba nee na woon inna salaamata wal aafiyata fi dunia wal axira tatawalladaani min niyatil xayr wa xawlul xayr wa fexlul xayr wa mulaasamata ahlul xayr Serigne Touba nee na jàmm nag ci adduna ak alaxira ci ñeent lay juddoo yéene lu baax wax lu baax jëf lu baax taqoog ñu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu